constat bi ñu def je crois que ñoo ko defandoo ñun ñëpp jàpp naa ne wër nañu marché bi xool nañu xam nañ ne euh, denrée bi am na ginaar yi am na xar am na donc yëpp am na li nga xam ne moo am jafe-jafe daal mooy sucre bi moo am jafe tuuti beneen bi nga xam ne aussi moom lañ ci seetlu xool nañ ne prix bi xaw na yéeg tuuti loolu aussi xam nga jamono bu mel su amee yooyu du ci mën a ñàkk waaye moom en tout cas marché bi daal moom euh, lépp a ngi fi daal yëpp bari na te yéen seen bopp def ngeen constat bi donc. Euh, loolu dal lañu ñu tout ci constat bu ñu def prix bi aussi so xolé même pomme de terre bi pomme de terre bi ak soble bi yokkuwul trop parce que so xolé té actuellement euh, sac bi mu ngi à 9000 francs muy muy soble muy euh, pomme de terre kilo le kilo à 400 francs je crois que lolou aussi c'est abordable. xam nga so déggee euh, so déggee état mu génn def déclaration nga dégg commerçant yi génn def déclaration yow do xam fo ci taxaw bu fekkene vraiment nekulo ci professionnel à la matière parce que état bi néna na sucre si mu ngi port commerçant yi ñoo demul jëliko commerçant yi ñoom nee nañu gisuñu sucre bi. c'est là où il a problème donc man ce que je suggère mooy que ne état na toog ak commerçant yi ñu toog wax nit ñi lu leer mais xam nga ne commerçant bu nekk aussi boo sañoon produit bi nga xamante ne bii moom ngay liggéey da nga koy am di ko jaay donc euh, su abordable rek moi je crois que commerçant yi dañ koy jël jaay ko. ñu ne yéen ñoo defandoor tour tour du marché bi gis nañu gis nañu ne marché bi wax dëgg yàlla produit yaa ngi fi mais li ñuy mën a wax rek mooy bu ganaar amee yàpp am na. yàpp nag yàpp xar am na soble am na pomme terre am na diwlin am na suukar nag moo dese suukar moo amul si marché bi te gis nañ ne produit yooyu nga xamante ne am na am na euh, prix yoo xamante xaw na yokk tuuti par rapport ak les prix officiels yi nga xam ne moom lañ homologué yoo xam ne nga xam ne moom la nit ñi war a jaayee mais comme bu produit yi am na rek dañuy dañuy jàpp ne rek consommateur bi ak fête gi dina mën a def si fête bu mucc ayib légui nak liñuy mëna wax fofu rawati nak problème sugar pa problème sugar bi nak mo gëna nek nak fuñ tolni problématique bo xamantene diran koor gi ñu nek ni yëpp yëpp yëpp yëpp consommateur yi dañ dañ son pour am sugar té dafa am problème bi ci nek bo xamantene ñun mënuñu comprendre lan la compagnie bi defar sugar fi Sénégal mom néna amna sugar état du Sénégal am na port port am na plus de nee na am na cent mille tonnes ne autorisé nañ fan yee passé jamono yee passé vingt mille ton yoo xamante ne war na dugg ci marché bi te lu ñuy jaaxal ba léegi suukar boobu ñu dañ ko gisul loolu lu doy waar la léegi ñuy poser question ñun di laaj ministère du commerce moom mi nga xamante ne loolu mooy liggéeyam mu def évaluation wax ñu suukar si fan la dugg lan moo tax consommateurs yi sonn di war suukar te rawatina ci feet yi ñu jëm. depuis nak depuis nak euh, concertation yi depuis novembre biñu ñu concertation yi ba légui amaatul benn toog suñu digënté ak ministère du commerce pour def évaluation parce que ñu ñu te demandé nañ loolu pour ñu xool def évaluation xool lañ fa jëlé woon ak fu ñu toll ni lan lan mo fi ne mais ba légui nak loolu amagul. ñuy wax ne tey tamit dafa bokk ci plan d'action yoo xam ne ñun dañ dañ ko dañ ko commencé mettre en place mooy que problématique bi ñu nekk muy problème mu suukar que état bi jël si ay mesures yu gën a gën a gaaw pour que ni ñu mën a julli si jàmm ak salaam. wax leen ne nag de manière générale li nga xamante ne tey moo nekkoon na suñu yéene mooy ñu ñu xool parce que ndax marché bi am na suffisament de de de denrées alimentaires ñu mën a kii. beneen bi si ganaar yi nga xamante dafa am dafa amoon feebar waa ministère waa ministère de l' ñoom rassuré nañu ne zones yi nga xamante ne yëpp. feebar dafa am dañ ko épargner marché bi épa dañ ko épargner marché bi kon mën nañ am xel mu dal ne que yu ñu jot ci marché bi ay produits yu sain la loolu mën nañ jàpp mën nañ jàpp loolu si xel mu dal